man Ibrahima Ndiaye laa tudd. Ndiaye ñu fekk la fii ci buntu kër euh, Balla Gaye Balla Gaye di waajal benn làmb yu am solo moog Modou Lo lan moo waral seen taxawaay fii ci wetu këram buntu këram. waaw li waral suñu loolu mooy ñëw supporté suñu mbër di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam lu kawe si kaw Modou Lo te Modou Lo xam ne fii duñ ko may dara Modou loo ginaaru kookali la buñ ko jàppee mu xam ne Balla du moroomam li ko Balla wax rek ay supporteurs am ñoo koy yab mais moom yabul Balla su ko Balla jàppee mu xam ne lépp dëgg la ginaaru kookali la Balla du moroomam te 2-0 lañ ko fas yéene def ma xam ne lépp dëgg la Balla du moroomam bu bëggee nooyee na ko wëri feneen mais du doon fii Balla nag amul lu ñu jaralul dañoo tayle suñu bakkan ndax Balla di ko ñaan nag suñu borom defal ko ndam lu rëy 2-0 ndam lu neex sax dóor mu daanu ci barke Serigne Fallou Awa Bousso loolu la ñuy ñaan. kaan laa ma ji barki Serigne Bamba 13 secondes sax du ko mat. Balla su ko jàppee da koy daan moo ko mën moo ko ëpp doole billaahi moo ko mën moo ko ëpp doole Modou ginaaru kookili la dafa tëwle màgg dañ koy duma dañ koy daan 2-0 billaahi 2-0 loolu tax loolu non bokkuñu quoi Balla Gaye da ko dàq bëre da ko ëpp doole ëpp ko 5-5 ëpp ko gëm-gëm billaahi wallaahi Balla da koy daan ndam li moment ah, nice am nañ ndam lu yàgg dañu ñëw confirmer rek xool jëli bi ni ñu demee

waaw dañuy garder kër gi en même temps ndax booy bu ñuy bëreel saay-saay la te saay-saay vrai saay-saay képp ku muy mus a bëreel rek dugg na sa kër Issa Pouye ko njëkk a wax ndaaye wu 4 heures du matin gis Modou Lo di cëpp këram ama seet wax ko kon xam nga ne ñun duñ ko bàyyi barki démboo Njaay fii xaw ma démb rek am na lu mu fi yónnee waaw moo tax ñu baara fii ndax booy bi saay-saay la même filmé tam gis naa ne ngeen bañ ñi tam filmé tamit loolu tam ci la bokk wala. waaw ndax ay information yu bëri la ñuy bañ muy dem est ay fil combat bee ko laaj quoi daf ko waral moo tax ñun xam nañ ko ñuy bëreel te puis suñu mbër. da ngeen ko xel wala lan la parce que ni ngeen saay-saay la. non allah kulli aali. allah ñu ragal ko quoi. non non ñun duñ ko musa a ragal tuuti nañ ci mënuñu ragal Modou Lo jamais jamais jamais jamais mënul nekk non daf leen nang sama gars yi daf leen nang daf leen nang gannaaw yaa dégg ñun mënuñu kaa ragal est-ce que yaa fil ñun Modou Lo Modou Lo mënul jaaxal ki nga xamante ni daf kaa daan ci 21 secondes mënut a nekk te xam nga combat bee passé dañ kaa xam rek bugguma sax di wax mais man xam naa man na xoolal dama xàmmee bu baax 100 pour cent Balla Gaye lu leer barke maam Serafal 2h yi dañ ko mus a gëm musu ñoo koo xalaat ñun barke maam Serafal sa waaye eh, ki mooy I don't care I don't know worry lu leer laa la wax Modou Lo xoolal sunu séet la xam nga lan moo ñu deseeg moom ñu jox ñu ko ñu jébbal ko naccal ko loolu moo ñu deseeg moom mais à part amuñu leneen. mais na xam ni c'est le sport na muñ bu gàllaaj amul woon ci làmb ji du musa am ndam barke maam Seera Fall lu leer laa la wax. lu mu war a xam te askan bu may seetaan nii TFM laay wax askan bu may seetaan ni xam nañ lu may wax bu baax lu leer laa leen wax Modou Lo bu gàllaaj amul woon ci làmb ji du mus a am ndam mukk ala kulli ali te doo mus daan Balla Gaye te doo mus daan Balla Gaye doo mus daan Balla barke maam Seera Fall doo dara dafa war a gëm ni alalu gaynde segg amu si wàll ay soldat BG doo fi nekk moo ah. loolu daan kenn daan kenn fii ay soldat BG doo fi nekk ah. waaw waaw waaw mais liñ koy liñ koy mooy xam rek gars yi nañ teew xoolal ñu jox ko yu gaaw xam nga na gars yëpp def teew yéen a ma gën a xam waaw. waaw yaa ma gën a xam comme dab rek. waaw neexal dañ koy neexal incha allah. man euh, artiste musicien la man la ñu wax Kamuyande Salsero. mooy Kamuyande waaw. ñu fekk la fii Géejawaay euh, sa dëkkandoo am lamb ju am solo dimanche moo diggante ak moo ko Modou yow en tant que dëkkandoom lan nga mën a wax ci moom. ak bari bëri yéen ñetteelu télévision boo ma waxal nee naa ndox du bàyyi yoonam euh, diggante Modou ak Balla sans mystique du question dama mais sans mystique Balla doy parce que yemuñu parce que je ñi mu fi gis nañ ko n'a pas fait ça mook balle bokkuñu du question dama far nak waye modlo ba ila yow mi ne pour mu Si Balla je ne ko pas nek mom na indi pire ñu dan ko simple mais bu xex dinañ ko duma dan ko allah kulli alin inshallah di la la mëna wax. man Fatmata Ba laa tudd ñu balah. maa xam ci mère fa euh, sa dekkondo Balla ya ngi dégg naa ne sa yow yaayam nga tamit mu doon sa dekkondo mu am lamu ju am solo euh, yeen ñi nekk fi dekk ci wetam euh, lan ngeen mëna wax ci mom la. yaayam la lolu leer na leer na ñepp tamit Balla li mo mëna wax ci mom dafa bari mais duma ci sori parce que Balla xalé bu bax la xalé bu la xalé bu mak la. Balla Gaye mooy mbër bi nga xamante ne moo financé jigéen ñi ci koñ bi jox ñu fii cinq million ne ñu damaa leen financé ngeen liggéey bëgguma ci bëgguma ci loolu daara bëgguma ci lenn dama leen koo jox te yàlla tax baax ci ñun nag yaru Balla Gaye boo amee ordonnance moo gën ci yow boo amee facture courant moo gën ci yow dégg nga booy dem marché sax boo tasee Balla Gaye sax mu làmb posam ne la am dégg nga li gën a méttati luñ dul ñaan ci àdduna bakkan bu dem ku ci koñ bi loxo Balla Gaye mooy njëkk a dem Balla gay dina def ceeb dina def dëwlin dina def xaalis def lépp Balla daal gàcce ngaa laa ma moom. yéen koy ñaanal ci combat ñoo ngi koy ñaanal ba fu ñaan mën a yem di ko ñaanal ba fu ñaan mën a yem Balla Gaye man li ma ko yéene yéene ko njabootam sànq wax naa ko seen waa kër ma ne ko Balla Gaye bu ma bu dee dama koo yéene safaan man mii ba yàlla na jiitu ci man man ak sama njaboot parce que Balla kenn war koo yéene lu bon parce que xolam dafa rafet. dafa laabir seen waa kër baax seen waa kër laabir ma koy ñaanal Balla Gaye yal na ko yàlla may ndam combat bi yal na ko ci yàlla may ndam yàlla ba ko ci cet jiitu yal nañu andi ndam li fii ci golf mat la xamal nag contre Yékini fii la ma fekk sama buntu kër gii jël ma ma sol sërëg te set tey maa ngi sol sërëg te set mu ngi mel na yàlla dafa nangu te yàlla nangu na ñaan gi nag waaw moo loo damaa bëgg nag mu xam ne ndogal na ko muñ ko rek nattu na koy muñ rek te yàlla tax na. den ko daan ba pare. ah yàgg na yàgg na daan nañ ko 2-0 yu leer nañ maa la wax lii waaw. 2-0 laa wax. 2 2 2 2 2 laa wax. 2-0 la 2-0. nañ ko door nañ ko daan 2-0 kenn mënu si dara ba la jëlee ndam le ba pare ñëw nañu la ko bu ñu dara 2-0. Mariama Daxaba maa ngi dëkk golf. Balla Gaye suñu fans la soose lay lakk walla olof ma lakk soose waaw Balla Gaye na fan solom naa la sonta ndamoo Casamance rek Casamance rek ndam rek lay am ndam rek. waaw waaw dañu wol suñu bopp dañu wol suñu bopp ndam rek la ñu am Balla rek. ok ah, salaamaaleykum man maa ngi tudd Adja Baye dëkk Golf Balla Gaye ñun ñoo nekk moom depuis mu nekk xale ba tey xamuñu ci moom lu dul jom ak fulla ak fayda te ni nga sant ñun ñoo bëri taa Casamance dorong. Modou ata Balla Gaye boy la Balla Gaye xam si ñaaw waraw Balla Gaye ba duma te Balla Gaye la yaa noo Balla Gaye la sa mboos yaakaar waaw noonu la mbaadi mandi kol naka moy laal Modou Lo ay jikko sota fonla karola bar dollale jikko siyata tati dollale ni ala sonta balla ba boy han si nyakeme nana nyoboru ka sa boya ya boy kote ka boy jiboro ka sawndi la ni ala sonta